دنيا سنن كلك تموت يالي خير الورى ومكة دون كجالي ويلا يبو أحمد المكي دلو سيبو أحمد المكي aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, noo ngi nuyu mbokki taalibi yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp eh, di sant lool ci barab bi ñu toog tey fas yéene waxtaane kuy yàlla may eh, hayba may ko daraje ci lislaam muy koo xamante ne kii dañu war a jàng ci moom lu bari muy Cheikh Ibrahima mbake ñu gën koo xam ci maam Thierno Ibrahim borom daarul monti muy ko xamante ni kii eh, ginnaaw xar ak moxjisaat yi jaar-jaaram dafa lu mat a bàyyi xel la ndax ni mu ànd ak Tuuba ànd bu jafe la ni mu ànd ak sëñ ak jagle la ni ko sëriñ Touba yare ak jagle la ni ko sëñ Touba jàngal ak jagle la wàcc gi ko fi sëñ Touba wàccoon ak njabootam tamit lam ci jëf ak jagle la ba noppi nag mu am melokaanu boppam yàlla jox ko jikko yi nga xam ne bépp taalibe war nañ la koy wax nga di ko fàttaliku ndax ku ne xam na li ko booleeg sëñ Touba ndax maam Thierno Ibrahima listixaar la woon ci sëñ Touba. Euh, sunu borom a ko xamal ne ko moom moom bu ganee jamono bu dee góor li nga bëgg lépp di ko am kon foofu rek war nañoo xam ne ñëpp amel nañ ko ci njukkal ndax listixaar la ci sëñ tuuba ba noppi bi mu ganee jamono it dégg ngeen li ci sëñ def wax nañ ne am na ñu ne sëñ Touba ne wër na néeg bi mu nekk ak soxna Faati Isa bi mu ganee jamono ñeen fukki guddi di jàng alxuraan nga xam ne gudd gu ne wër néeg bi di jàng alxuraan ginnaaw ba mu ko defalee yu siiw yooyu nga xam ne xam nañ ne dafa wax ne kii de jëkk naa ci seytaane ci moom lañ njëkk dégg ko Sëñ Tuubaa wax lool ci moom moom nga ne jamono sëriñ bi da ko defal li ñëpp xam ne kii de cërëm yi jëkk naa ci seytaane dana fi nekk ba jóge fi du mooy yàlla ci cërëm yi muy misaal mu doy waar ba noppi Sëñ Tuubaa ku ne xam na ne sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ko royee yemul rek ci sunna yi ñu xam daf ko roy ba ci taarix roy ko ba ci deret roy ko ba ci jukko roy ko ci melu yëpp melu yi gën a xóot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa daf ko donn donn yonent yëpp ndax boo seetloo eh, yonent yàlla Muusa ni mu ñaane woon yàlla xaaroona jàppale ko ci liggéey bi xaaroona rakkam jàppale ko ci liggéey bi Euh, haaruna aqi bi bihi azri dégg ngeen alquran wax ko sun borom ne ko sa nasuddu adduduka bi xaqika bi aqika danañ dëgëral sa përgu ndeyjoor ci sa ci sa ci sa bii di haaruna sëñ tubaa doon naat loolu wëlbatiku doon naat Seydina Aliou ak ak ak yonent bi sallallahu alayhi wa ndax gis nañ ne ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niiw na ku ñu wax ne wàññi wàcc na ci bàmmeel nangu ko rob ko ndey Seydina Aliou la ñu mës a dégg moo ko def ah ba mu wàccee ci bàmmeel bi tamit dafa wax ne yàlla maa ngi lay ñaan ci xàq ji ma am ak àq gi nga xam ne moom la yonent yëpp am ci yow kii sama ndey la moo ma yar yàlla nag ma rus ci moom sëñ Tuubaa it eh, eh, loolee da ko dellu siwaat ci soxna Faati Isa ndax eh, maam Cerno Ibrahima boo bëggee xam mbiram fokk nga tudd soxna Faati Isa moom mu doon misaal ci jigéen ñi ndax soxna jaara sun borom da ko fayee soxna faati issa fayee ko soxna faati anta faye ko ñu mel ni maam bu Njaay soxna faati isa nag ku ne xam na ne tawhid ji mu amoon ci sëñ ak ba koy jox boppam boobu jox ko bopp xewul ku ne xam na ne ci moment yi gën a cruciaux ci yonent ci yoon wi nga xam ne ñëpp dañoo demoon ba jaaxle moom moo dindi pas-pas bi xamal nit ñi ne sëñ Tuubaa jógewu fi te booba tubaab bi dañ daan def li ñuy wax diversion yónnee ne sëñ Tuubaa jóge na fi di seet ndax yoon wi day tas daa bokkoon ci seeni xeex nit ñu xamuñu ne woon looloo taxoon tubaab yi wax ko maanaam bëggoon yoon wi bu ñëpp xamee ne sëñ Tuubaa laxu na rek ñëpp dem bàyyi maam Thierno ak maam Thierno la mu muñ ca yi tamit loolu ñëpp xam nañ ko ci njaboot ak lam ca daj ndax euh, fanaan na biti fanaan na ci taw fanaan na ci ngelaw am na ñu ne sax fanaan na cim sàq ak waa kër sëñ ndax dem cib dëkk amul fu fanaan mu lal grand boubam doomi sëñ Tuubaa yi tëdd ci mu ne ci biti kon kooku sacrifice yi mu def ci yoonu sëñ Tuubaa def ko ci lislaam def ko ci xam-xam lu mat a bàyyi xel la soxna Faati Isa nag euh, sëriñ bi ba mu koy robit ci Jolof da ndax dafa da sëñ bi da ko woo ngan am na ñu wax ne sax daf leen ne maa ngi maa ngi seeti sama doom ju baax ja waaye xam naa duma dellusi dellu si ndax moo ma maa lay dugal ci bàmmeel te dellu si na ba sëriñ bi ñëwee jolof ah, diggante ba yeewi ni am na ñu wax ne ngan nga sax da ko ganale ba yeewi ko ba mu dem ca diggante bi la soxna si soppiku génnatul dëkk ba noppalu dajeeg sëñ bi dugg ci biir àll bi ah ñu daan ne nañ ko toppatoo rek diggante bi sëñ bi ñëw ginnaaw gi la am ku ne man de ak seen naa kuy ñëw ndeke sëñ Tuubaa la mu tàllal loxo bi yëkkati ko ci kaw ne abal leen ba bàmmeel bi bi mu dikkee la ko toppatoo rob ko ne man de def naa la waxoon xam nga da ko noonu maa lay dugal ci bàmmeel waaye nag ragal na fu jar ragal de muy bàmmeel loolu la ci sëñ Tuubaa ah, am na ci diggante borom daaru ak sëñ Tuubaa loo xam ne xam gi mu xam sëñ Tuubaa kenn xameewu ko noonu ndax moo sëñ Tuubaa ko lépp moo tax sëñ Tuubaa tudd sëñ Tuubaa ko taxaw moo ko jàngal moo ko yar moo ko tërbiye moo ko defal lépp moom daray kenn nekkul ci Ceerno lépp lépp sëñ Tuubaa la am na bés sëñ Tuubaa daa di wax ne dama bëgg ñu wutal ma ay seng yoo ne euh, na ngeen mu wutal ay seng yoo xam ne ku jaar ci biti du gis biir kër gi bi ko waxee nag sëñ Matar Samba Diop daal di ne maam Thierno kon nu ñuy def maam Thierno ne ko waxul loolu moo ma yar jublu ci ay seng dafa bëggatuloo am njaboot ci sëñ Basiru gii la bëgg a yem kii man ma xam waxinam loolu lay wax naan ku jaar ci mbedd bu mu gis biir kër gi soxna yi lay wax buñ fi ñëwati buñ fi andeeti kenn maam Thierno ne sëñ Matar Samba jax réew nga nañ waxtaan buñ waxtaanee ñu seet ñi fi nar ñëw andi leen fi ndax bu dul loolu du njaboot. ñu daal di waxtaan ma sëñ Massar sëñ Matar Samba Diop waxtaan ak maam Thierno Birahim ñuy xool di xool ba jàpp ay tur biñ jàppee tur yooyu euh, bi nga xamante ne bi ñëw nañ ci sëriñ bi maam Thierno ñëw sukk ci sëriñ bi mu ne ko lu mu doonoon mu ne ko dafa am ñuñ bëggoon dem mu ñëw ci kër gi mu ne ko ñan ngeen ñan ñan ngeen xalaat maam nu génne list bi ñu bind sëñ bi jóg daal di génne beneen kayit ne ko kii de xool ko mu xool ko mokk it googu ñuy benn mu ne ko ñii ba ma nekkee ci géej gi la ma sama borom boole woon ak ñoom li maam Cerno tànn kenn nit yokku ci kenn wàññiku ci te sëñ waxu ko moo tax muy wax naan sëñ doom yu mag yi maa leen maa leen yar waaye ñi ci des moom maay seen baay ndax man maa tax ñu am <laughs> kon kooku cër bi mu am ci sëñ Tuubaa doonul lu kenn kenn kenn kenn di natable ñu bari xamuñu ne nag Cheikh Ibra Fall mës na ko gane ji Daaru Musti waaye ba mu ñëwee daf ne daf ne bu leen ko wutal buntu maam Thierno dane da dindi leen seng yëpp ñu ne ko ah dañuy xeddi kër gi mu ne waaw na lépp dañ nañ ko ba noon bu demee ñu delloo ko ñu ne ko lu tax mu ne kooku amul aw yoon fu mu jaar yoon la loolu moo tax <laughs> xam nga loolu moo andi digganteem la dëggal seen diggante moo andi maam Mariama Sëy muy xam ne mooy ndeyu sëñ Ousmane Mbacké Cheikh Ibra Fall la ko yar soxna Penda Ndiaye Jóob a ko yar ci njaarim ñu joxoon ko sëñ Touba sëñ Touba woo maam Thierno jox ko ko ci ndigalu maam Thierno sëñ Touba ko ci ndigalu sëñ Touba kon digganteem seen diggante ñoom ñaar ah, mas na ma dégg Baye Cheikh ba mu ne ànd na mag sëñ Touba ñu jiitle mu summi dàllam sëñ Touba summi ay dàllam ne ma jël dàll yi te bariwuma lu ma gis muy dox tànku neen ne ma jël dàll yi des tuuti mu ne ma tegal ma teg dàll yi mu salaat ko. ne ma xam nga lu tax ma def lii ma ne ko déedéet bàyyi si moo ko nettali te lu wir la lii may wax ma ne ko déedéet mu ne ko dañoo romb alxuraan suñu borom ne ma wormaal ko mu ko alxuraan mu ne ko waaw mu ne ko ceerno moomu ñu romb bi ma koy romb leen suñu borom ne ma yaa ngi romb alxuraan kon nag defar nit ba mu doon jëmmi alxuraan loolu moom moo jafe mën ngaa defar nit nag ba mu jub mën ngaa defar nit ba mu baax lépp mën nga ko def xanaa xamuloon ne borom daaru ci nji ci njëlbeen nit ñi dañuy def noonu jàmm bu sëñ Tuubaa jënd la xamuñu woon ne rakkam la bu masaan jaar fee na ànd ak moom santu ko sëñ bi war ci fas wi muy dox yor der bi yor satala gi nit ñi dañ naan ah Modou Mbacke de jaar na fi sànq ak jaamam boobu dañoo defe ne jënd lu sëñ bi mas di def mu ngi tëdd ci suuf ak ci der bi toog tëdd moo daan moo daan defal lépp sëñ boobu sëñ bi gisul kenn <laughs> lépp moo ko daan defal sëñ bi <laughs> moo daan dem yónnent moo daan yelwaanali sëñ bi ci jamono yu jëkk ya moo daan yelwaanali sëñ bi ñu ñuy dund boobu sëñ bi da ko daa wax naa ko del dem ci kër yi nga xam ne ay way ñàkk lañu bul dem ci ñu am am benn bés nag am fu dem ci kër ñoo xam ne dañoo am xéewal ah, maanaam ñàkk nañu sax waaye keroog yàlla da leen a may xéewal ñu ànde yëf yi xaw a soppi ko nag sëñ Tuubaa ne ko Cerno waxuma la woon ne bul dem ci kër ñi am mu ne ko eh, eh, li nga ma wax rek laa defuma li nga ma waxul nee na keroog sëñ bi sax da ko fitnaal ba ne ko lu tax muy dem ci kër ñi am mu ne ko boo ma doon rey li nga def ci man mooy du ma wax lu dul dëgg waaye defuma defuma li loo ma santul sëñ Tuubaa ne ko kon xam naa ne fi mu ne noon bi danañ ma yóbbu danaa fa yàgg waaye jikko ji xam naa ne dana tax lu ma la téyeloo di nga ko téye ba ma agsi kon nag ci gàttal loolu mooy borom Daarul Mooti eh, eh, exemple la ci ci njàmbaar ku ne xam na loolu exemple la ci doylu exemple la ci fit loo mas a wax mu ne alhamdulillah foofu julli di àgg ba ñu ne eh, yàlla lu dogal lu lu neex ak lu naqari dalay neex moom foofu la doon dund moom nga tàgge ku nit ak nga yëgal ko ku gane jamono loolu la yemalaan benn baat la ci teg alhamdulillah waaw kon nag eh, mirit boobu mu am moo tax murit yëpp war ko delloo njukkal ndax eh, am na lum nu defal loo xam ne li kenn ku fi nekkoon na nga na eh, ku fi nekkoon doo ko mënee ni mu ko mënee ndax sëñ Tuubaa nee na ko bu ma del nii ma la wàccee njaboot gi ni nga ko yore bu ma fi nekkoon du ko mënee noonu kon xam nga ñun ñëpp la ko defal amul murit bu ko amul njukkal ci loolu waaw kon nag yàlla nañu yàlla taas ci barkeem. te defal na ko nu muy royukaay boo xam ne duñ ko fàtte mukk eh, te ñaan yàlla njabootam gi suñ borom yokk seen kattan ñi fi jot a mu yokk seeni leer te taas ñu ci barkeem eh, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.